Euh, jërëjëf Jacques Oumane Préra euh, moom nag euh, mu ngi fiy teew kooku nga xam ne rek tey moom dafa ñëw ak mbégte kanam gi yànju lool belli kooku nga xam ne moo de président Sall Ngaar Lamtoor Arwaar Bourgre président nam nan la. waaw maa ngi leen di fay di wax allé leen yow président day jig réew. waaw ah, macha allah loolu moom am na coupe du monde coupe du monde lii day wane xéwal gi nga xam ne indiwaale naa ko si réew mi. lii lépp nag loo xam ni vraiment c'est quelque chose de très important. Mhm. di la nuyu. di nuyu Omar. le lion di nuyu di nuyu. Endo <laughs> <laughs> di nuyu aussi tout le monde. Oh oh euh, démb bi lion yi gagné nga jékki-jékki buntu pale fees dell. Mhm. nit ñi di yuuxu. loolu lan nga ci lan nga sentir googu mbégte ak sa xol daal lan la sentir. Euh, démb nekk na loo xamante ni. lu am solo la. Mm-hmm. parce que bi ma tëddee noonu match bi jeex ñu daal di tëb jog kontaan dañu jékki-jékki rek une foule immense. waaw mm-hmm. daal di envahir le palais. Uh-huh. prési génnal prési génnal prési mm-hmm. génnal yaa ñu jig prési yaa ñu jig kuy dóora kuy saaga prési bokkoo ci prési ma ne leen non non non pas de gaarwaale pas de gaarwaale ah, ah, loolu nga leen wax parce que mhm. nag aussi gaarwaale bu la de quart final demoon mhm. alors quart final mais mhm. mu indiwul coupe d'Afrique quand même pour soxla waaw loolu de am na moo dooroon France moo dooroon France mais indiwul coupe d'Afrique on est là sa bul waaye tamit nag bul yàq mbégteem sénégalais yëpp <laughs> jóg après ku nekk bi ma tàllee sama loxo ñuy daw di ko njëkkante laal naa loxo prési sama ah, loxo prési maa ngi siyaare prési ma naan nii ñu may laal <laughs> di di wane ni vraiment lii mbégte ak bànneex la boo xam ni bànneex bu am mm-hmm. nag day wane ni eh, match bii di ñëw ci kàttanu yàlla Sénégal kii moom bu fekkee ne parce que ñëpp a ngi waxal ma lay wax ne non non mais bu dee Sénégal gagné na dina fexe li Sénégalais yëpp bëgg ma wax ko. pour ne leen damay dem demander troisième mandat foofu la ko bëgg a ah. ñàmbaale <laughs> déedéet da ngay bàyyi ba. mu raataloo. parce que aussi tamit da ngay bàyyi yow sax mën nga. est-ce que nekkul ni démb dañ la ko demandé nga bañ. non booy wax nañ ko ne ma président man la non non nga rasu. après ñu wax ma rasu. oh déedéet na foofu nag mën ngaa nangu koy ñaan. waaw dégg ngeen ko defal bi ñoom ñëpp di di ko di ma ko ñaan. dégg ko defal léegi man match bi daal nee na bu Sénégal daal incha incha allah. gagné maa ngi xalaat daal militant APR yi ñoo ko daje nee na yéen a non c'est pas les militants loolu amul loolu dëgg loolu ah, amul mat loolu amul man programme li nan lañ ko mën a programme il ah, c'est pas une affaire programmée wallaay Azim dëgg la les Sénégalais ont venu spontanément mm-hmm. boo gisee ni ñu ñëwee prépa mu ne woon ne ce sont des Sénégalais ñu ñëw ci pale bi sax nanguwoo leen ko fa taxaw non non mais lii mënuñu ci dara

jërëjëf soxna si nanga ñu ngi nuyu naa leen sant leen gërëm leen. waaw waaw di déglu. Euh, xam nga nag man euh, mhm. chaque jour damay neex. waaw mais daf may neex heure bu dara xewee rek ma woo la. jërëjëf ndax danga ci am des fois loo xam ne ah, mooy loolu daal expérience daal. Mhm. léegi euh, bi jeex na. Mhm, waaw match démb bi. première waaw première <laughs> pour nit. waaw léegi yow bi bi nar a am dimanche. digganteem ak Angleterre Sénégal. en tant que yow ngañ. en tant que visionnaire fa sori mhm. voilà di xalaat loo xam ne du ñëwagul kenn ka da nga xam ci affaire ay euh, météo mhm. kon donc match du la jaaxal ci sport lañ ne waa dama lay bëgg a xamal rek parce que yow da mën a ràcc bala si ko daal man laaj na ci loolu yow yaay ràcc léegi ñëwal sport voilà moom lu ne la xam daal ñëwal waa waaw sant yàlla sant suñ toi di wax bàyyi wax leen Aliou mu bàyyi dëgër bopp bu dëgërul bopp rek li ma koy digal bii passé lii mu def nii maa ko digal. waaw dëgg la moom waaye dafa dem ba ci biir dugal ci lu ci bokkut noo def mu jéem a wane ni man na te du moom mën a. Mhm, mhm. parce que daf maa woo ma ngañ. Mhm. ku la woo situation la woo téléphone. la ma ngañ ma ko ah, mu ne ma lii de rek yaa ci yaakaar damaa gis ñu di la invité ngay wax lu am solo te situation bi critique na fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla boo ma waxut classement xaw ma nu may def. ma ne ko Aliou. loolu dara équateur ay maçon lañ maçon boo dugalee maçon boo dugalee ay maçon du dox bu dee da ngaa gis ni équipe bi équipe ab maçon la boo xam ne bii dañuy toj dangay indi ay architecte ma ne ko amee na day architecte ñu ne ma kan mooy architecte yi ma ne ko yow it Aliou gone gi naan ilimaan day dugg ñëw yaa waxoon loolu ma ne ko da koy dugal ilimaan mhm. tey parti siis mënta ñàkk yaa ko waxoon loolu xamoon nga ne ku tudd parti siis mi ci biir kii bi ma ne ko da ngay génne crépin crépin baaxul jamono ji ñu nii parce que bëli siiram da koo jàpp mhm. ba fi mu toll nii crépin mosal rek lañ ko war a def waaye warut a dikk ci leer mhm. dëgg la am dëgg dëgg la ba ma ko waxee loolu Aliou def ko dem ba ci biir xanaa boo laajee nit ki premier mi temps mu jox la classement deuxième mi-temps nga war ko mën a war koo a bàyyi. dëgg la wala wala nga laajaat ko. Mm. waaye jekk jékki rek rocc ilimaan. waaw war ko woon a génne foofu moom. ma ne ko lii nag mu ne ma jaay ni damaa. ah da nga ah, woo dëggante woo leen. parce ah, lii nag téléphone ne ko lii nag mu ne jaay ni damaa man rek. ah ma ne ko te mënoo. Uh-huh. waxal Koulibaly mu yéeg. ah nga wax ko loolu. Koulibaly yéeg dugal bal ba ma ne ko wax ko mu di yàlla. <laughs> kon de yow instant nga nekkoon. bi loolu lépp di am fan nga ne fan ngeen nekkoon. numéro direct la ma jox. ah d' accord. ma ne ko garder ligne bi bul kuppe lu eh, xew naa la wax. d' accord. diggante ba Angleterre ci mbir mi. Hmm. Angleterre. Angleterre day dem teer. mbaa nga dem teer. kon teegaa nangu mu dem teer. karamba mooy wax kii dem teer de. yaa ngi jël place karamba man. yow dama bàyyi yow. yow karamba ku bu ñuy wax ci football nag. Euh, expérience laa bëgg nuy wax. Karamba moo la ëpp expérience football yow. loolu am na da ngay wax mooy kat. ah. man la gone yu mbuur gi doom day Karamba. mooy kat. déggoo lu ma la wax. lu muy def moom lan lay def. kay dem teer ak ñaata bi dugg ak kay gañe moom bàyyi rek nag. xam nga ko. xaw mu nekkoon mu nekkoon li nga xam ne rek moo di seen émission bu mag. heure bal bi jërëjëf. ñaata bi kay kay. jërëjëf mu nekkoon li nga xam ne rek moom moo di émission takku chaque mercredi rek nii lay demee Fatou Dieng Sall ak Sadio donc ñu nekkoon li nga xam ne rek ki nga xam ne rek moom moo di Omar Boun Khatab Gueye te invité woon ki nga xam ne rek moom moo di Ibrahima Ndiaye chef de desk sport. nettali point com ñu jóge fa daal di ànd ki nga xam ne rek moom moo di Fatou Dieng Sala ci India show sponsor leader yi école des jeunes mariés ak Didi Diouf Nepad musical li moom moom may sargal ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy bàyyi xel di leen waxaat encore bravo au lion di leen wax naan leen yàlla na leen ndam li jik ñu amaat yeneen ndami ndam ñëw ci li nga xam ne rek moom moo di coupe du monde bi ñu amee ko donc ñu nekkoon ci caméra bi ku ci mel ne ki nga xam ne moo di Keba ak ki nga xam ne rek moom moo di Babacar ñu nekkoon fi nga xam ne rek moo di régie ku ci mel ni Jacques Oumouane Prera xam ne rek moom moo di Binta Mouhamad Fadal di leen sargal di sedd sama kóllëre ak yéen bu suba incha allahu rabbi ki nga xam ne rek moom moo di ajaratu béti mub si di dee calaw dina ñëwaat ci beneen eh,